bisimila ren a ah balaa waxati dawen si Malick barke Rasulullah la ko tijjee ne kaane ñàkk yar di indiscipline waaw yi nga xam ne nag maanaam moom la ñu nemi ko ci Sénégal gi la day waaw Serigne Mbaye Sy Mansour nee na mi la di wàllum anarchie xale la may xoolal ma garage yi ak atelier yi nga xam ne nag maanaam Alaaji Malick bi day waaw la muy naxarlu daal mooy yenn ci ay mbedd ci Ndakaaru njaajal joo lu mel ni nag avenue Lamine sey bële waaw nga xam ni maanaam dañ faa samp ay bagage yoo xam ne day te jaaykat yi ñoo def lu ne mel anarchie totale laa wax enquête yéene kaa ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique day Abdou Karim Fofana waaw moo demoon ca xalifu Tidiane yi nag daal koy jébal kon programme am maanaam raxas dëkk bi kon moomu set wéy te ah, te loolee ci diwaanu Ndakaaru Ndiaye Jël te day continuer kon ci biir réew mi yëpp le témoin yéene kaa ne président Macky Sall day waaw nee na politique am daal mooy bu benn salte amati ci kon ci mbedd yi laa la wax Dakar dem ba mel ni Kigali capitale Rwanda bu ëllëgee waaw xam nga président Léopold Sédar Senghor day da doon wax ne 2000 waaw Dakar dana mel ni Paris eh waaye loolee nekkul waaw waaye est-ce que suñu mën naa dem nag ba daal di mel ni capitale Rwanda gee di Kigali ci wàllum set dëkk booboo set Paul Kagame rek en tout yi daal xam naa ne bari na lool enquête yéene kaa ne tali ñaar daal dinañuy ñàkk seenu bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah maa ko wax daanaka fanweer ci ay doomu aadama daa am kon ay gaañu-gaañu permis à waaw yi waxoon ne kon xëy na dana wàññi kon lii di accident yi lu yàlla xam doy na honorable waaw nee na gis nga suñu société bi moo feebar te ko feebar nag wàllum kaaraange la sécurité te ci weeru mai ah. tey lañ koy dëkkal TDR école police muy wàllum fichier électoral ba organisation élection locale yooyee ñett kan moo jiite opposition bi la ñeent élection bi nan lañ ko fas yéene defee kon ak wàllum ba juróom élection yooyee ñu daal koy dëkk le respect du républicain waaw boog soo bi li front de résistance ba day waaw daal dinañuy dakal nag seen bokkoon taal waa grand parti day nee na danañ bokk ca dialogue ba les écoles yéene kaay ne dialogue boobee waaw front de résistance ba day daal dinañuy gedd FDS bu Babacar Diop ñoom nag la ñuy naqarlu daal mooy gis nga ñi dañuy boppam kon moo saful yàpp saful jën lëndëm nañu xamuñu fu ñuy teg seen tànk xamuñu ni ñuy doxee front opposition ba day waaw ñoom nag la ñuy sàkku daal moo ñuy taxawal benn commission boo xam ne day ka koy jiite day tëddee njaaxaanaay mu jiite liggéey ba rek l'observateur ne pourtant Macky Sall day ah looloo ne ci bopp de d'accord na de ah waaw pour ku tëddee njaaxaanaay jiite liggéey ba waaye Babacar Diop la muy naxarul rek waaw mooy ci kaw Macky Sall ndax jàpp lambi golo la lambi golo daanu golo yaa ko moom lambi golo waaye liy neexul termine yéene kaay ko en tout cas ba day waaw ñoom it la ñu bëgg daal mooy ko tëddee njaxaanaay personnalité neutre rek 24 heures yéene kaay ne opposition boobee day waaw dañoo jël Abdoulaye Wade kon ko tegee ko ne dañ koo isolé mar taali waaw parce que Abdoulaye Wade ak parti bii PDS a bokkul ak PDS ba woon ba mu gétee élection présidentielle yi ba léegi moom PDS waa réew mi xoolatuñ leen ñu bàyyi de ne waaw danoo am crise bu rëy coow loo xam ni kon dugg fa Omar Sarr waaw ne sut Abdoulaye Wade dax la wax maar day taali de Abdoulaye daa toog di xaar ay rapport li fi jot a ni dara woo Omar Sarr jotu ko est-ce que Omar Sarr sax moo décroché looloo ma jaaxal ma bu dul woon a Karim Wade ba maar day taali ndax nañu Omar Sarr PDS problème la affaire tamit problème la day ubil box populi nañu Macky Sall day jël na yaba teg ko ilaha illallah ah te la ko ko yóbbee day mooy la muy xeex ak Alioune Sall kon te Guédiawaye eh. kee rawatina nag la naan daa bëgg meer te moo ni ci élection présidentielle ya day waaw la joo waaw liggéey bu dee liggéeyal na ko Macky Sall nag waxuma la a Guédiawaye waaye ci yeneen i gox sax ba ci Touba waaye gis nga Macky Sall avant moo dem France ah ca la daal di ate jël dëkk ba jox ko Abdoulaye Daouda Diallo eh fan la Joob nekkoon doon fa liggéey Macky Sall nee ko rajax ordonnancement des dépenses publiques eh daal di ko yëkkati nag dénk ko Abdoulaye Daouda Diallo kon la Diop léegi yoratul dara dara eh way Samba buur buur la rakku buur buur la évidence seene kaay moo tax Macky Sall waaw balu fetal dee la jël dóor ci kaw ambulance Aminata Tall mii nga xam moos wàccee mu wàcc ñàkk a mu wàcc nga koy dóor bal Dakar Times ne waaye ko ko fa wutu day di Mimi maison des retraités la ñu ko yóbbu maar day taali conseil économique ñee candidat la ca mairie bu Kaolack nag laa la wax way Samba waaw njiital CCBM day nee man dépassé naa fu may duggee ci ay parti politique naan damay militer la tax ma ne candidat ci mairie bu Kaolack man nag dama di waa Kaolack Kaolack nag defal ma ma am yëpp Serigne Mboup ne te boo leen bëggee dégg dëgg gis nga yor léegi wàllu mairie yi lée waratul nekk affaire politicien yi kese looloy dëgg de te problème waa Kaolack nag dañ koo war a régler libération yi nekkaa ne Thierno Ousmane Si day procureur daal dina koy seral te ba la commission ya waaw directeur info ne waaye lang ca mbedd ma saam ko a la wax maar di taali lal ko ci wàllum tappale fraude ak concurrence des loyale li tax ba Abdoulaye Daouda Diallo day daal dinañ koy woo ngir mu wax ca li ñu a wax kay critique yéene kaay nee na mooy osa ñi ngi ndaataa talak diggu ndaa ndaata ko noos ci Ndakaaru njaay jël jóob demoon ni ca France kan jóge day waaw ak Italie ak Vietnam dañu faa daanu ba wëndeelu laa la wax waaye gis nga osa ci ñeenti atu yàlla fanweeri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 Sénégal 7 man Ndoye Bane chaîne YouTube Sénégal 7 ci laay seetaan ay vidéo yu am solo di ca seetaan sport di ci seetaan tamit ay faits divers yoo xam ni day xew ci réew mi ak bitim réew. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur wwwsénégal Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.